asalaamaaleykum mbokki Géejawaay nuyu nañu leen bëgg nañu leen nuyu naa la nuyu naa la taaral xëy jërëjëf damay wax ne suñu ñëw tey fii mënoon naa ñàkk mais nag da ngeen yor loxo yu set gore bëgg setal seen bopp parce que seen maire la ñu tuumaal seen maire moom la jiiñ corruption ñu ñëw ci seen wet nag du seen maire may ah, may ku siif mairie bi waa ba tey loolu la moom la ñu jiiñ sàcc six mille milliards fii lu di doxantu ak di kokkaliwaate ngeen wax na yeen da ngeen bëgg dindi tuuma da ngeen a bëgg a wane ni yéen bokk leen ci càcc googu te ay gor ngeen ñu leen di jaajëfal askanu géejawaay di leen wax ngeen gën a taxaw parce que mbir mi yéen kenn waru leen ci jiitu parce que yéen bi leen commencé sàcc du tey yéen yàgg naa siif li ngeen yor démb la ñëw këf seen mairie bi kon yéen xam ngeen ni jikko caay-caayam yàgg ngeen ko xam na mu defoon nag ba siif mairie bi noonu la def ba siif li nga xamante ne tey moom la senegal yépp bokk kon ñun yéen la ñuy jàppale ñun yéen la ñu wuyu si te dañ leen da xamante ne xeex bi dafa tàmbali mais amul àpp Aliou Sall nag ñun yàkkamtiwuñu ko yàkkamtiwuñu ko parce que magam dafa jiiñ àdduna bi yépp sàcc ba ñu jàpp ko moom loxo ci poche kon kooku amul lu muy weddi ñuy xamal rek ne leen ni ñu fi solu ba jeeg bu doon sunu sago chaque jour noonu la ñuy xeexee ndax ñun sol ay tuba yëkki ji loolu amaluñu njëriñ mais nag takku nañu tey wàcc kol yi wàcc robe yi wàcc xaftaan yi wàcc lépp. merci beaucoup jàkkaarloog moom xeex. kon jaajëf jërë ngeen merci beaucoup jërë ngeen def. merci Maimouna. le président Mamadou Lamine Diallo. waaye en attendant Mamadou Lamine Diallo di ñëw. jaajëf notre frère notre tos. jaajëf jaajëf jaajëf moom après Mamadou Lamine Diallo. ànd ñu bokk. même client même sénégalais. kon mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ngeen mobilisation ak seen bi. daje tey bii xam ngeen ko. le Sénégal est un pays pauvre. donc un pays pauvre su amee ay ressources. pétrole beeg gaz bi mën naa développé Sénégal tey. kon waruñu xoole benn famille wala benn clique di ko jeune bàyyi ñu dans la pauvreté ak dans la misère donc ñun ñëpp war nañoo taxaw xam ni combat bi ce n'est pas un combat d'un ou bien d'un groupe ou bien d'un homme c'est un combat national et international ku ne war koo jël def ko soog combat donc actuellement ñu ngi pétrole kan kan bi vendredi prochain lay jeex mais le pétrole continue donc actuellement on va continuer le le combat ne s'arrêtera pas effort de la victoire wala gañ kubbi bu mu tax ñu taxaw état loolu la bëgg Sénégal gagné ñu nelawal leen mais bu leen ko nangu pétrole benn famille ko looyee bu ñu ko looyee nañ ko jël jox ko Sénégal Sénégal développé ñu dem à l'émigration ñibbi Sénégal Sénégal jëm sa kanam jërë ngeen jëf merci sa kanam. léegi nag merci beaucoup merci beaucoup grand frère waaw Didier dañoo mbokk géejawaay sama wax du bari mooy que tey ñun tey bu ñu jëlee yàpp yëpp ñu kasoo rëbës du kenn ku dul Aliou Sall parce que Aliou Sall bi nga xamante ni tey mooy yor département de Guédiawaye di nga xamante ni mooy rakku Macky Sall moo ñu yóbbu rëbës tey avant élection yi donc ñun tey li ñuy wax tey mooy ñu delloo ko rëbës du leneen lu dul ñu delloowaat ko rëbës te defe naa ni tey dañoo war a am programme affaire bi warul yomb dañuy xeex ak moom defe naa ni bii ko wootee fenn fu dul biir këram biir këram la ñuy dem taxaw fa ne ko duñ fa jógee tant que bàyyiwul commune bi ñun suñu xeex Aliou Sall du affaire pétrole avant pétrole dëkkul Guédiawaye dëkkaalewul Guédiawaye maire importé la soxlawuñu maire boo xamante ni maire importé la te dafa ñàkkal fayda waa Guédiawaye donc il n'est pas de Guédiawaye yàq na daru Guédiawaye yàq na waa Guédiawaye donc dama ne nañu xeex ak moom tey ñu ngi fii bii ba këram la ñuy dem siège fa digalul Guédiawaye duñ fa jógee. merci beaucoup. ça c'est le cœur qui parle. et nous allons remettre nous allons remettre la parole à Abou Diallo. deux minutes. que les autres se préparent. une minute. micro. Euh, asalaamaaleykum waa Guédiawaye message bi may joxe du gudd parce que je suis là en tant que coordinateur du Front citoyen pour la libération de l'otage politique Khalifa Ababacar Sall donc li ma ciy wax mooy message bi aar li ñu bokk laa koy wax pour qu'on puisse réussir ce combat il faut que ñu solidariser wu libérer les otages d'abord parce que Macky Sall ab ay malfaiteurs am se sont unis réunis ensemble pour défendre Aliou Sall si nous aujourd'hui nous ne prenons pas compte l'otage politique de Khalifa et l'exil de Karim dañuy disperser wu nous ne devons pas être il faut que nous nous solidarisons libérer déjà l'otage qui est une ressource humaine. Parce que Khalifa Ababakar Sall fait partie des 42% qui avaient, qui avaient voté contre Macky Sall. Karim Wade est exilé pour combien de milliards Quelqu'un est libre pour 6 000 milliards. Et cette justice, nous voulons libérer Moussouze Aliou Sall, cette justice Amadou crédibilité. Il faut que nous libérions l'otage, Karim Bapare, juger la justice elle-même avant de mettre Aliou Sall à la disposition de la justice. Soyons merci